Euh, fidèles internautes Dakar Midi ñu ngi amaat mbégte ak kontaante comme niñ koy faral di ko defee saa su nekk nee naa leen nii rek lañ koy defee euh, comme dara bu amee rek dañuy wàcc dañuy préféré wàcc sur le terrain pour waxtaan a gars ku nekk jox ci sa xalaat tey nag li ñu war a waxtaanee ñu war a waxtaanee ci affaire u sëy bi. sëy gis nañ sëy yi léegi dañuy tas sëy yu bëri ñu ngi tas ñii di naan si góor ñi la ñii di naan si jigéen ñi la ak lu mu munte xew rek dañuy wax dañuy dugg waxtaan ak gars yi ku nekk wax ci sa xalaat euh, ma ànd ak sama caméraman bu ñaawul ji abu lu si mën a nekk daal xam naa gars yi dinañ ci tontu euh, ñu fas yéene dox nànk xuus waxtaan ak gaay yi. maa ngi fay. Amy Sarr. maman Amy ñu fekk la fii tey ñu fas yéene waxtaan ak yow si gis nañ xale jigéen ñi nangatuñu say léegi ñii di sëy sëy contra léegi quant à yow en tan que citoyen wala en tant que suñu yaay mooy lan ngay wax xale jigéen ñi wala góor ñi. moom ci góor ñi góor ñi la jigéen ñi la xale jigéen ñi moom sëy contrat dem contrat waaw waaw sëy contrat la moom contrat deux ans un an. nga tas nga tas dem sa yoon. métti ni moom ah. waaw na moom. waaye ñëpp nag ci góor ñi bu ñuy doxaan ñu ñuy wax ak ñuy def du benn bu ñu doxaan dina wax loo xam ne nekkul boo demee gisoo nga dem sa yoon. bu ñuy doxaan dañuy doxaan wax loo xam ne gëm la loolu nekkul boo demee nag moom gisoo loolu moo seen contrat bi rek contrat ngeen signé boo demee boo gisoo da ngay tas loolu la. am na solo. ñu ngi lay jaajëfal. <laughs> ñu naa. waaw fan la soxna si. tur beeg sant bi. Assane Faye la. Assane Faye waaw. fay tey ñu fekk la fii fas yéene sekk ak yow yenn waxtaan yi ñu gis léegi divorce yu bëri na lool ci dëkk bi ñii naan góor ñi la ñii di naan jigéen ñi la yow kanta yow en tant que citoyen lan ngay wax man responsabilité bi mag bi may joxe man jigéen ñi laa koy jox su ma amee conseil bi ma leen jox man jigéen ñi laa koy jox parce que ñooy samay rax ñooy samay sœur ñooy sama jabar ñooy sama yaay tamit waaw mais jigéen ñi tey jii dañoo woo bët bëgg àdduna bëgg luñ mënta am loolu nag boo ko defee moom da ngay sonal sa bopp sonal sa jëkkër te foo dem doo fa yàgg mais boo doyloo dal teey mën a muñ lu mu métti métti métti ëllëg di nga am lu neex parce fi fii daara xëy lu neex sëy moom dalay wóor ni tey jii boo xëyee boo xëyee mu neex rek war ngaa tiit ëllëg mais boo xëyee muy naqari muy métti nga toog di muñ bu yàggee dina neex. est-ce que tamit nekkul sëy ba nga xamante yéen xale yu góor bu ngeen di sëy bu ngeen di génn ak nit li ngeen koy gëmloo ak li ngeen koy wax bu demee ba si amul yéen est tamit il pas tant que yéen wax li nga xamante ne moom moo nekk quoi nga xamante ne moom moom relation ku la wax ne relation sama relation damay wax dëgg bu bout jusqu'à bu loolu mënul nekk dëgg moom kenn mënu koo dajal ba mu daj déedéet suñ si relation bii mënuñu ko waaw da ngay neexal ko jigéen gi ndax ñu bëri koy topp waaw léegi nag yaw ku ci gën a neex baat daanaka yow loolu la ñuy loolu la ñuy loolu la ñuy boo sëyee moom nag bu demee ba gisul lu bu loo xam ne li nga ko doon wax gis ko ci sëy ah muñ moo fay des rek ndax bu fi tasee tamit day demaat di taxawaalu rek fii jigéen ñi fi tas da ngay taxawaalu ndax yow tey boo demee boo tasee doo fa am dëkk bi xat na appartement yi xat nañ waaw léegi kër yëpp a xat daanaka kër bu dee kër famille ku ne boo amee da ngay tabax sa néeg côté bee nee léegi boo ñëwee boo defee boo defee dem seen kër fooy fanaan sa néeg yaay bu dee sa papa day fanaan sa yaay fooy bu fekkee am ñu tëdd seetaan ay minutes yooyu ñu tegale photo yi côté bee daal di lal matelas yi tëdd bu ngeen xëyee tegalewaat affaire yi yooyu amul sens balaa caa am sa néeg sa jëkkër wutal écran plat wutal lal lal

tasum mbaaco njaay bi jëkkër ji jëlaloon ko appartement di ko jox ñu ko daam ñu ko takk takk suuf ci dëkk bi mu nekk ay kilifa diine loolu noonu en tant que lan nga siy war a wax ñooñu moom ay conseil ñooñu ay takk ku ne man pour man artiste yooyu noonu ku takk amoo jabar takk amoo jabar amoo ko teg ab artiste boo ko taxee amoo jabar non xoolal fii Sénégal fii ñaari moo ba nga ba nga ba nga xam naa ci année mais ba nga juddóog artiste yaa ngi moo fi ah, na la bu ki ne laam ak yooyu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom jaan mbaay ak yooyu booy yi ñoom ñi ñëpp ñëpp doo see tax lu ma koy doyee damay wóor kii sama doole la soxla rek bu ma bu jeexee damay bàyyi sama doole doo soxla xaay ëpp bu dee dem dem étranger mën naa am passeport di bol man mënu ma ko am bu dee soirée yi fu ko neex dem te man amatoo soirée ndax moo xëy damay liggéey moom li muy gis man du ma ko gis moo tax man du ma mënu ma fees ba dem mënu ma ko jaaxal ci lenn moo tax su ma ko fondoo damay dàq ci xaj. léegi wan conseil ngay jox Mbathio Ndiaye en tant que man moom ñooñu aw ma conseil bi ma leen di jox moom ndax lu ma wax ci ñoom dama leen tooñ mais xam naa ne man ku ma déggal góor gu ma déggal du leen tax man góor gu ma déggal du leen tax ndax ñooñu duñu ay sëykat. duñu ay sëykat sëykat artiste bu fi way fii ku dul ancien yi du ñu duñu duñu duñu duñu sëykat. li nga xam na. waaw ñu ngi lay jaajëfal. ok sant. waaw ngi sant bu baax. tur beeg Fallou Ka Fallou tey euh, ñu fas yéene seeg ak yow benn waxtaan ñu gis ne léegi divorce yi bëri na lool ci dëkk bi xale jigéen ñaa ngi sëy ñaa ngi tas te loolu noonu ban fléau lan moo koy andi lan moo koy andi. waaw mais problème jigéen ñi la parce que jigéen ñi léegi ñoom mënatuñoo xaar sëy moom du neex euh, parce que jigéen ñi léegi lañ bëgg mooy na nay nooy rek te jamono yi léegi il nga mën a muñ mën a xaar mu mën a neex te sëy ñaara koy def góor gi góor gi jàpp jigéen gi jàpp. dégg nga waaye problème yi léegi sëy yooyu takk say sëy léegi balaa euh, trois mois mu tas lu ko waral mooy jigéen ñi parce que nañu nañu bëgg nañu bëgg lu yomb sëy sëy sëy sëy du yomb sëy sëy neex na neexut ku mën a ku mën a muñ moo moo ko mën a def ku mënta muñ ku mënul xaar ko def lu lu mooy problème la si sëy léegi muy gaaw a tas parce que euh, problème bi góor góor ñett euh, am na si responsable parce que nit ki boo ko takk da nga wax dëgg parce que loo gis dëgg moo koy fondement loolu dëgg du yàgg dégg parce que sëy léegi nag loo lu si bëri yëpp naxante la te sëy amul naxante li si gën mooy nga wax li nekk ki wax li nekk waaye sëy bu amee naxante rek du yàgg mooy pro mooy problème yu bëri di am jigéen ñeen ñoom it parce que ñoom it dañuy bëgg intérêt bi mooy ëpp euh, njëriñ li parce que euh, sëy du jëti entre ba bopp li si gën moom nga nga jàpp ma jàpp dégg nga lu bu neexee ñu bokk jariñu bu naqar ñu bokk muñ moo war a léegi sëy Euh, boo jiitalee intérêt bi rek wala nga jiital mu nay neex rek sëy du yàgg mooy problème jigéen ñi léegi daanaka mënatuñoo xaar dara mënuñu muñ dara te sëy dafa dafa am muñ dafa am euh, neex dafa am naqari te yu yëpp bu teew rek yow yow boo mun gëm-gëm bi da ngay da ngay bëgg a rocceeku dem dem dem dem seeti leneen te sey waru doxee noonu. kii boobu noonu xaalis boobu wala intérêt boobu noonu laay ñëw nga gis léegi dëkk bi semaine bi passé ñu ngi waxtaan loo xamante ne mu ngi lëmba dëkk bi mooy ci di wax su Mbathio Ndiaye bi ñu dem bay tudd ay ustaas ñu ne da ko takkoon takk suuf loolu noonu en tant que yow jeune lan nga siy wax. non takk suuf moom moom mën na nekk parce que takk suuf diir diir ba ñu ko takk suuf moom takk suuf parce que parce que man man man a wax koo xamante ne nii ab jeeg la ma bañ ñu xam ko. mag na ma loolu dara. waaye sëy léegi parce que dañu dañoo jiital xaalis bi te sëy du xaalis. da ngaa gëm ne takku suuf du dara. mais takku suuf mais takku suuf mais takku suuf ayul bu fekkee bu fekkee bu fekkee ne mbaacuñ mbaacuñ bu fekkee kaata bi ngay wax yow. ba kaata wax waaye da ko takk takku suuf bu fekkee ne mbaacuñ mbaacu da ko mag wala wala ku góor ki mag ko yooyu moom sutur rek la waaye diin ma ñu loola. diin ma mais daa amoon jëkkër ba pare. daa amoon jëkkër ba pare takku suuf. daf takk suuf loolu moom di dina moom kenn ko rafetlu waaw waaye bu fekkee mbaa ji amul jëkkër amul dara parce ñaari mag mën nañu mayante mën nañu mayante parce que yow bu fekkee bu fekkee ne yow am nekk nga mag marié nga tàggoo may may may may am na am na am naa jabar dégg nga am naa droit takk la takk takk suuf parce que di di di ma bañ bañu loolu waaye rek nga nga ne si sëy ba pare def def ren takk doom di yoon dàq na ko di dàq na ko. ñu ngi lay jaajëf. jërëjëf. tur beeg Moussa Moussa Sabali. Moussa ñu fekk la fii tey bëgg a waxtaan ak yow si euh, divorce yu bëri yi léegi xale jigéen nangatuñu sëy comme suñu maam léegi en tant si. Hmm? waaw euh, Seko jamono ji moom dafa doy waar quoi Seko da ngay gis fii xale bi jigéen boo xam ne Dakar moom xale yi Dakar moom kenn nanguwul sëy Seko am na ñu waxoon ni may ñu bëri dañoo tàmm taxawaalu du toro yaa ngi mais léegi soo ay xale jëm léegi ay sëy contrat la ñuy sey ñu bari jigéen góor ñëw la yëkkati fa may la ay xaas bu bari nga dem sey contrat maanaam. waaw maanaam sëy boobu mënul yàgg sey alal sëy boobu sëy alal la loolu mënul yàgg sëy boobu amul barke du am barke sax ay un mois deux mois rek nga dégg ay problème kese sëy boobu sëy alal la sëy alal moom mënul mënul mënul mënul dem quoi xam nga. man moo tax ma roy waa village man moom man moom Moussa moom xalaatu takk booy dakaar moom ñu si village yi ñu dem takk ji jabar man moom man si boobu man fa dem takk jabar xale yu jigéen moom ku dëkk Dakar boo yaakaare na Moussa moom day ñëw takk la moom wala samay gelle moom yaay na sa bopp. c'est que da gis xale yu village yi nga ñëw ñëw nandal leen ñu xam nga ñu ñëw takk mën a sëy mën a def lépp te village boobu boo fa demee xam nga. ñoom amuñu lool quoi comme ça ay contrat ni wala de ay sey jox ma xaas bu bëri nangam nangam loolu foofu amu fa wa xam nga ñoom dañoo mën a sey dañ la koy dañ lay dëggal tamit mais pas jamono jii nii xam nga jamono ji xale jigéen ñi ñoo sëy. xale jigéen ñi Dakar nañ la gaañ. dañ la lan. dañ la gaañ xale jigéen Dakar nangootuñ. wallaahi nangootuñ sëy ñaata divorce moo fi am fii rek la am fii fii man si Dakar rek laa ko gisee te amul fa amul si yenn région wala si ay ay village amul fa fii rek laa ko gisee. deux mois nga dégg nit tas na affaire yooyu rek la ndax sëy alal alal la ñuy sëy te loolu loolu jamono jo ñun ñu de ay suñu càq la ñuy yor te xam nga ñun moom mënu amuñu ay deux millions la ñuy may xale yu jigéen loolu amuñu ko suñuy suñuy rakk wala suñu kii amuñu ko. alal boobu lay ñëw ak yow ci cadre Mbathio Ndiaye euh, ñu gis ne jëkkër ji ko jëloon appartement muy fay xaalis bu ñu gis yàggul tuuti ñu dégg ne tas na ñu déggaat ne am na benn ustaas ba nga xamante ne euh, tudd nañ turam mu ne ko da ko takkoon takku suuf muy Pape Hann léegi yow kanta en tan que citoyen lan nga siy waaw takk suuf moom yaakaar na moom kii woo quoi di di ne bañu ko yaakaar naa de su ma xam nga mun naa nekk tamit xam loolu ñoom ñaari ñoo si ñoom la concerné waaw waaye takk suuf moom moom mooy lool sëñ bi nee naa sant ak. Ah. tur beeg sant. Ousmane Thiaw. Ousmane ñu fekk la fii tey fas yéene waxtaan ak yow si ay kàddu. si nga xamante ne mooy lëmb dëkk bi jamono ji ñu nekk muy sëy yu bëri ñu ngi tas xale jigéen ñi nangootuñu sëy comme suñu maam yi luñ doon suñu yaay yi. Kanta yow en tant que citoyen sénégalais yow lan ngay conseil bu nga leen di jox wala lan moo waral divorce yi. conseil yi may joxe moom dama koy jox euh, ci ñaari côté yëpp dama koy jox góor ñu jox ko jigéen ñi que jigéen ñi tey. bari na ñuy problème lool jigéen ñi bari na ñuy problème parce que dañuy am jëkkër tourné dem amaatu far góor ñiit dañuy takk seen jabar même pas un mois ñu teg leen fa dem di doxaaniwaat kon ñaar ñëpp laay joxe na ku nekk xoolaat sa bop góor war na noo xoolaat suñu bopp jigéen ñi ñoom itam seen ay bëgg-bëgg na lool parce que imagine tey ngat tak jabar def réception financé salu lu un million amu dawaloo doomu waa sa jabar taxaw naan laa may ma sama baat ak lii bu dee ni góor gu dajeeg man boo ma man moom boo ma ñaanee benn yoon moom du ñaar boo ma nee may ma sama baat midi une ma gënal la say bagage ne la demal parce que damay jàpp ne ah kiikat kat bëgg a ñi it war na nuy digge loo xamante ne nii wala nuy wone ci seen relation nit ki ngay doxaan sax pour lew am nga droit comme benn côté. léegi yow gis naa nga ne euh, jigéen ñi dangay am jëkkër am far loolu noonu est-ce que nekkul góor ñi ñoo joué seen rôle. non même lu góor gi suyee di suyee di rôle moom jigéen warul am jëkkër amu far da koo war di daw mais loolu du dara fi mu toll day boo doon lim bu jigéen ñi de cent quatre-vingt-dix yëpp. ñu ngeeg seen jëkkër yor seeni i far te kenn du ci xam dara toog ak moom ñi xam du ñu ñemee wax da ngay gis sa xarit bu jëkk xam sax mais du ñemee wax parce que danaa bu ma waxee tasab sey léegi euh, kanta loolu noonu ci tasum boobu noonu laa ñëwaat ba léegi nga gis li nga xamante ne mu ngi xew si dëkk bi la cadre de Mbathio Ndiaye gis nga tas na euh, dégg nañ tamit ñu ne am na benn kilifa diine bu mag ba nga xamante ne mu ngi si dëkk bi ñu ne da ko takkoon takku suuf kanta yow en tant que sénégalais yow nga jàngatee waaw takku suuf moom ah, man te du ma conseil def ko parce que maanaam boo demee bu ne da ngay tak takk suuf rek yow nar a toolu jub muy kilifa muy ak lu mu mën doon takk suuf moom foo ko defee moom yow nar a toolu jub parce que bañ nga sey waroo cee ne bu parce que sey dafa war a fees ñett xam ne diw kat tak na diw ci farataas yàlla ak sunaas Mohamed mais foo demee bu ne takk suuf rek yow neb nga ko nit ñi maanaam yow lu jub amatul foofa pour man noonu la sama xel mu gàtt boobu. dégg yow tamit est-ce que tamit njëkk yeeg goro yi ñooy tas sëy léegi. parce que yow tamit boo takkee sa jabar jëlal ko appartement naa coow du am. moom boo takkee sa jabar jëlal ko appartement moom. après lu ca am yow yaa ko teg sa bopp parce que am nga yaay am nga baay fa sa yaay sa papa ne fa la sa jabar war a ne bu dee dëgg rek nit ku nekk ku tak jabar amoo ker fa sa yaay ak sa jabar nekk. sa sa papa fala sa jabar war a nekk mais amoo kër ba pare dem di jël appartement loole appartement yooyu ngay fay par un mois boo ko dajalee deux ans am sa keru bopp pour man moo gën jël appartement. nga sa jabar xalaatuma ko. ah lu tax. aw ma ker di la jëlal appartement ndax dinaa ma am kër. amee ah, loolu dara ma sa am ker boo ko yóbboo tamit jubóowul ak say mbokk nan ngay def. fay waroo takk ku jubóowul ak say mbokk man bu ma takkee jubóowul ak say mbokk. ma ne la demal ci say mbokk ma desak ak say mbokk. ah yow mii sa àdduna nan naa metti di. neex loolu kay àddina ju neex la. amagoo jabar amaguma. nga yéex am jabar yow léegi ma am yàggatul. Eh. yàggatul de léegi ma am. Eh. Mhm. xale jigéen ñi kii leen tamit. xel waaw am na am na am na am na ñu ma nekkat ñu ma nekkat laa wax de. ñoo nekkal ñu bëri. waaw am naa ñu ma nekkat waaw. am na yow mii sa parce que damay seet ñoom ñëpp ku ma ci doy ma dem ci yow. ku ma ci woon loo xamante ni yaa ma gën a doy ma dem ci yow. yow pourtant ñi nga dajale noonu est que ñoom tamit bu dajale woon <laughs> dajale nañu dama koo xamul. ñu ngi lay jaajëfal. merci. waaw fay naa la. tur beeg sant. ah. tur beeg bi. Abdou Ndoye. papa ñu fekk la fii tey nga toog ñu fas yéene ci croisement Cambérène bi léegi ñu fas yéene waxtaan ak yow ci cadre divorce yu bëri yi léegi gis nañ xale jigéen ñi nangootuñu sëy ñi di naan ci góor ñi la sëy léegi tas yi léegi bari na lool en tant que yow suñu papa nangootuñu sëy comme suñu yaay nuñ doon sëy en tant que waaw père de famille yow lan ngay wax si loolu noonu waaw li ma si wax si loolu mooy euh, sëy yu bëri yu tas mooy li ko waral mooy ñàkk a wax dëgg muy góor muy côté góor muy côté jigéen parce que dañ ne lu lu lu lu feeñ cib sëy nuyoo woon na sa ngoro ga te xeebaate bi moo bari te jigéen ñi léegi moo kër yi ak oto yi ñoo yem lu mujj juddu gën a rafet mais jigéen ñi ñoo war a xam li ñu bëgg sooy wut jëkkër bul taamu kii ma ngee dama ñaar fukki at du ma seeg yow wala kii ma ne ma 15 ans du ma seeg na wér te man laa yor bul xool si baraag la dëkk bul xool si ardoise la dëkk bul xool si étage la dëkk mën a yor te nay jullit boo dee julit nay julit comme yow boo dee beneen euh, religion nay religion comme comme yow te man laa yor mais ji li ngeen bëgg a def yéen xale jigéen léegi ñu baal ma mooy maa yow rek ak sunu appartement loolu amul nit du jur si doomam doomam sonn si ba bëgg a dee war a telal yaayam war a telal nga ñëw war a nekk kër yaayam yaa ngi dégg nga ne ko du ma dëkk si sa yaay du sa papa. yaa ngi dégg te moom papaam jur ko yaayam jur ko sonn si moom muy côté jigéen gi it yow nga mel na nga war a mel sa yaay sonn si yow sa jëkkër yor la jël la da laa war a yor bu dëgg naxante bi moo bari nañ bàyyi naxante bi. nañ bàyyi naxante bi te jigéen ñi ngeen bàyyi taamu bi xool ku mel ni man mi mosolu xaftaan nga ni duma ma sëy borom xaftaan te bu nu toogee di waxtaan may nit njaay duma la wax waxi dof te dépense baa ngi fi lépp a ngi fi bàyyi leen xeebaate bi loolu rek la. léegi ñu wax si kaar gis nga temps yi dëkk bi am am na lu koy lëmbe lool ci ay histoire muy tasu mbaaco njaay wi léegi ñu ñu dem ba si lim ay ay ustaas ñu neen ñooñu dañ koo takk takk suuf te mbaacu instant yi léegi dafa tas léegi ñuy naan am na benn ustaas bi nga xamante ne da ko takkoon takk suuf muy an léegi yow loolu lan nga siy wax. loolu man si sama jàngat dëgg naa ko mais man si sama rafet njort man dama jàpp ni loolu du dëgg parce que man paab an si ni ma ko gisee nit nag moom kenn du ko xam 100 pour cent nit daal ndëm mais si man li ma si li ma ko jàngatee moom Pape Hann man yaakaar naa ak grandeur bi mu yore man yaakaar naa du dem mukk de takk-takk suuf man laa parce que man benn ragalul jabar yi mu takk il paraît que dégg naa am na ñaari soxna kon ragulu de takkaat ñetteelu ñetteelu jabar te de bu demoon euh, mbàcc moomu même bu fekkee papa da takk ah mbàcc nit la comme nit nit ku nekkay juum mbàcc rek yu juumu fi ah yaa ngi dégg kon loolu du dara gis nga mbàccoo nañu xool ne doomu aadama la yàllaa ko bind. yàlla bu doon ku def dara mu mu contrôler si loolu rey la kon est-ce que nit ñi dañ ki mais yàlla da koy tooñ mu xool la xam ne tooñ nga ko mu bàyyi la noonu. la pata du la laagal lam la doon may du ko du si teggi dërëm di la bàyyi ngay kii parce que lay xaar nga ñëw si moom mu raconté ak yow kon nit ñi nañu bàyyi wàññilante kii doomu aadama dañ koy respecté donte ne dafa juum si juum lañu yàlla bind matuñu mbàccoo doomu jàmbur la man xawma ko. mais loolu du dara si jigéen jigéen dañ koy suturaal Pape an aussi yaa ngi dégg loolu même bu ko defee yaa dégg takk-takk suuf loolu peut-être que xañ na moom moo xam li tax mu def ko man nag man gëm naa ne man man damaa gëm ni man amul man man Pape Hann la nit nag daal la ndëm mais man si sama rafet njort man gëm naa ni loolu amul man yaa dégg nit nag la Youssou doon wax rek guddi bu doon bëccëg kon dina métti lool. kenn ku nekk nag ba si man mii wax ak yow am na lu may def loo xam ne tey fi ne boo demee am na lu may def loo xam ne tey bëgguma kenn teg si bët nit ñi suturaalante nit ñi nañ delloo si seen xel loolu moo am solo yaa ngi dégg kenn ku nekk boo fàttali ko fa nga si say jaar-jaar boo demee ba am quarante ans wala 30 ans jaar nga bis boo xam ne def nga loo xam ne boo soñoon doo ko nit li nit boo soñoon kenn du ko xam kon nañ delloo xel yi tey wàññil sutura buñ tomp internet bi ak euh, réseaux sociaux ak journalistes yi nga xam ne yow macha allah da ngeen ko ku dugg ku surux rek ngeen bëgg kon jigéen ñi nañu sëy buñ gisee jigéen jëkk euh, sëy boo si xësee am doom pertatoo yow l'essentiel que nañ la takk si farta si àlla sunna Muhammad boo si xësee am doom ñaanal say doom màgg mais pertatoo nit ñi famille it nañuy jàppale seen doom yi jigéen ñi waaye yor jur doom mu dem sëyi am fa ñetti doom ñeenti doom tas mu ñëw nga ni ko dootul fii loolu du yoon bu ko jëkkëram yorul àndal ak moom yor ko jóg di daanu màggu xale yi yàggul nañuy dimbalante ñun suñu biir surtout parent yi boo yore si doom jigéen mu mu war a ni jëkkër jam moo ko yorul mu tas jàppale ko mu ñëw waaw mu ñëw ay doomam màgg ña fi sonnoon tey ñoo fiy dimbali waate de nañ delloo si xel yi yéen xale jigéen yi bàyyi leen xeebaate bi bu ngeen gisee paa bu dëgër te mën a affronter yéen nungul leen. lekk am na solo am na solo solo waaw. papa ñu ngi lay jaajëfal. <laughs> waaw affronter bi affronter bi moo si am solo de. nga takk ba. yorul xolal yoral ngandam étage boo mënul si jigéen ñi dara faale wuñ la mais yo bañ la yor dara te man si jigéen ñi bu baax boo ñëwee dañuy affronter yow loolu doog lañ soxla. kon jigéen ñi bu ngeen gisee ku leen affronté même bu bu yoree dara dama demal sëy dem ñafal yi sa bopp ngeen ànd bu ngoon jote ngeen wàcc toog waxtaan ma loolu laa bëgg de bu leen xeeb de bu la ku si gis paa ba lu dëgër ba la mën a takk kéel. yow boo gisoon xale ni di da ngay takk. Ah. pas. xale boo xam bu ñëwee mën a yem si loxo ànd ak sama aw jaamu yàlla mais dama koy tak xale doomu soxor de. non li ma yor a gën a soxor. man xale bi ma yor a gën a soxor do xam nga fi may waxee xale bi ma yor a gën a soxor. <laughs> papa wax na de gën a soxor. <laughs> waaw du màgg rek la yor moom. moo gën xale rek. xale lay nekk moom du màgg. waaw est-ce que mën nga ah, ah, de si de man de sama aaw amul problème man. mais xam après maa yow dinañ waxtaan ci suuf mu ngi lay jaajëfal <laughs> jaajëf. jëf mbokk internetu Dakar di comme niñ koy faral di ko defee rek saa su nekk ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje prochainement comme niñ ko faral di wàcc sur le terrain wax si cadre Mbathio Ndiaye ak cadre divorce yu bëri nee naa leen fii lay xewee si Dakar Midi képp.